nga dem noppaliku candidature Abdoulaye Wade invalide ñu validé ko dem nañu at moom daan nañ ko làmb gi nag moom comme nee woon na dafa yàkkamti lamb gi làmb gee ngi nii daan nañ ko léegi nag li ñu bëggoon mooy Macky sàll xam na ne lii mu gis tey wax dëgg yàlla nag bu mu ñu def comme 2000 léegi nag dañu bëgg wax ne Abdoulaye Wade na dem noppaliku may nañ ko mu noppaliku mais nag ay ñoñam ñu ngi sas Macky Sall nañ ko lijjanti parce que dañu jël suñu ay bien dañu jël suñu ay alal dañu foxati dañu foxati suñu ay alal kon nag tey dama ne Ablaye Wade suñu maam nga may nañ la nga dem noppaliku waaye ay njojam nañu li jël ci ñaaw teer ji Et dañoo kontaan rek kontaan rek kontaan rek bu baax bu tax parce que dañoo sonn dañoo sonn sëñ bi 12 ans souffrance mënuñu takk jabar mënuñu tukki mais nag léegi jeex na Macky dina changer lépp incha allah. au premier comme au second tour dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu de nous délivrer enfin d'un régime qui a rendu tous les Sénégalais misérables, pauvres et sans espoir. Et nous souhaitons vivement qu'à partir de cet instant-là, que le Sénégal trouve, tourne une nouvelle page et retrouve un nouvel espoir. de niveau de vie amélioré pour les populations, d'emploi pour les jeunes et de bien-être pour les populations en général, de santé pour ceux qui doivent aller dans les structures hospitalières. Alhamdulillah, vive le Sénégal, vive le président Macky Sall. ñun ay mère de famille lañ nga war a fayal sa doom ñuy jàng facture yi ñëw dund bi ñëw bañ ñu ko suba buñ xëyee yokk 100 francs suba bu ñu xëyee yokk gaz 4200 dafa cher dund bi daal Ablaye bañu ko yokk bi moo nekk soo leen gisee ñoo ngi yor seen oto yi rafet dëkkuwaay yu rafet nit ñi nag sonn ba bëgg a dee bañu ko mu àndal lañ bañ jikkoo mais Ablaye ko jàmbaar la ñu ñoo bokk suñu dëkk man waa Kébé maire laa Macky Sall mi jël réew mi yàlla na ko jik ñu ni jik ñun ñii askan bi ñu commencé amagum nii lii leer na nañ Ablaye Wade lii waroon na ko xam mu toog dem ca ba mu amee tànk comme nag nii la ko defee jàkkaarloo la léegi yëf ki leer na nañ Macky Sall nag ñu koy ñaanal mu avancé sotti lépp lu ñu yaakaar ci moom ñu mun ko am moom tamit lépp lu mu bëgg a defar réew teg couragement de dernière heure yi nga xam ñoom ñoo ñëw Macky na xam ne ñooñu li leen indi seen intérêt seen poche leen indi mu liggéey réew mi Sénégal jëm kanam ñun ñëpp ngi ci gannaaw ñëpp kontaan ñu ñëpp nañ leen ci kaso ñu génnee suñu xaalis ñu liggéeyaat suñu réew loolu lañ bëgg wasalaam yàlla julli ci Mohamed di remercier tous les militants et militantes yi nga xam ne dañu taxaw participer massivement à ce que ñu dégager pas bi kon tey defe naa ne lii c'est victoire boo